yu mbokk yi que tout le monde a passé un bon di sant yàlla mi ñu may ñu fekke waat tey dalal ak jàmm Kajoor la revue web dañ koy tàmbalee ak signalu Walfadjri bi nga xamante ni ah, delloo nañ ko fa mu newoon Seneweb moom moo ñuy xamle lu ni mel ni ki démb la ñu ko euh, amal daal di koy delloo euh, ba 19 heures toftali mhm. euh, fanweeri simili loole nag nekk nouvelle boo xam ne coordination association de presse ñoom rafetlu nañ ko bu baax a baax ñu xamle nag ne Euh, loolee euh, mu ngi antu ginnaaw ba mu amee waxtaan boo xam ne njiitu réew mi euh, seqoon na ko ak ki nga xam ne moom mooy njiitu Walfadjri bi ànd ci ak ki nga xam ne moom mooy architecte bi di Pierre Goudiaby Atepa waaye nag euh, kuréelu journaliste yi di ko euh, CAP moom la mu bëgg mooy euh, ñu daal di jëmmal li nga xam ne moom moo ruse woon ci lël ba way taskatu xibaar yi amaloon ñu duppeekoon assise de médias lépp lu ñu ci tënkoon ñu daal di koy jëmmal ci nu mu gën a gaawee bokk na ci nag samp ab màkkaan boo xam ne moom mooy réguler makkaan bu yees buy réguler li nga xam ne moom mooy euh, secteur bi mu doon nag makkaan boo xam ne dafay tëddee njaaxanaay moom mhm. boppam itam ci lépp loo xam ne euh, moom lay def loole nag nee nañu moom mooy mën a tax rek ba li nga xam ne moom mooy euh, kepparu tasum xibaar ñu mën ko saytu ci anam yu mucc ay fexe itam ba li nga xam ne moom mooy euh, charte yi nekk en vigueur ñu ñu euh, ñëpp ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu tasum xibaar ñu sàmmoon tekk yooyu les chartes euh, itam acteurs yi yëpp kenn ku nekk nga doggu Euh, ci euh, réforme yi nga xam ne faw ñu daal di koy jël ngir fexe rek ba joyanti li nga xam ne moom mooy métier tasum xibaar euh, ñoom ñuy fàttali rek ni Walfajri ñu ngi ko tëjoon ñeenti waxtu ci weeru février ginnaaw. ba euh, candidat yi opposition yi doon euh, manifester li nga xam ne moom mooy toxal gi njiitu réew mi euh, na ma toxal élection yi ci biir manifestation yi nga xam ne Walf mi ngi ko doon filmer ca la ñu ko daal di couper signalam daal di retirer li nga xam ne moom mooy licence am. ca Saint-Louis monseigneur André Guèye daal di nay àddu ci situation wu réew mi. la wax nag mooy l'heure est grave maanaam jafe ñu ngi toll ci jafe-jafe waaye weesoogul ba léegi ngir euh, ñu am sursaut de euh, patriotique loolee nag moom euh, évêque bu Thiès nekk itam administrateur apostolique bu joses bu Saint-Louis mu ngi ko doon xamle ni ki démb foofee ca Ndar ci ab messe solennelle boo xam ne ñu ngi ci doon màggal téeméer ak ju ñaar fukk ak juróomi at yoo xam ne Euh, église Notre-Dame de Lourdes bu Sor moom am na ko moom seigneur euh, André Guèye nag dafa euh, fàttali rek solos jàmm ak dal ci réew Euh, nee na nag euh, jamono ji nga xam ne ñu ngi jànkontele ki jafe-jafe ñeel wàllu euh, politique fitna yi fitna nekk fi xol yi daal di jug faw nag kenn ku nekk nga fexe ba cultiver yi nga xam ne mooy jàmm fexe di ko doxee di ko waxee ndax nee na ab réew mënta suqaliku te jàmm amu fa loole nag nee na ngir ñu mën a euh, moytu nag euh, yee fitna. Mhm. faw ñu sàlloo ñaari mbir euh, muy orgueil ak égoïsme orgueil mooy rëy égoïsme mooy kenn ku nekk di di di di di di bañ xool sa morom maanaam di jëfee sa bopp yow rek yow kese doo xool li nga xam ne moom moo ñor askan wi. monseigneur euh, euh, André Guèye euh, daal di sàkku nag ci képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci kepparu politique bi moo xam nga féete ci kujj gi wala nga bokk ci pouvoir ngir nga fexe rek ba lépp looy def nga def ko ci jàmm waaye itam sàkku na ñu def seen kéemtalaay kattan ba waxtaan mën a am boo xam ne waxtaan bu dëggu lay doon. Mm-hmm. nga xam ne ca la ñuy jugee mën a saxal jàmm ci réew mi. bu nu jógee ci loolu fii ci Sénégal les cas de meurtre mu ngi ñuy gën inquiété maa ngi ko doon euh, junj ci euh, nasaraan waaye euh, ñu gën ko yaatal fii rek loole nag Pulse Sénégal moom moo ñu koy dal di xamle nee na nag lu toll ci ñeent fukk ci ay faat bakkan moom la ñu dal di lim ci diggante ndoorteelu janvier jàpp diggu février bi loole nag nekk lu tàmbale ëlëm xelu askan wi bokk na ci ay faat bakkan yoo xam ne ci anam yu dor doy waar lay doon ay ay ay faat bakkan yoo xam ne lu koy waral ay ay euh, crime personnel ak passionnel ak yu mel noonu wala firange mm-hmm. loolu yëpp euh, la dal di lim nee na nag deux mille vingt quatre bi daanaka dafa li ko tàmbali mooy faat gi ñu faat euh, xale tout tànk boobu ay atam tollu woon ci ñaar mu amoon ñaari at Euh, mu nekk ñaari xale yu ñu tëjoon euh, fële fekkoon ñu tëj leen euh, fële ba pare abandonné leen ci ab oto fële mhm. ca Joal wax na itam ñaari xale yoo xam ne ñu ngi leen fekk ci oto Kër Mas Kër Mbay Fall lu yàggul dara ba kenn ci ñoom ay atam mu amoon ñeenti at moom moo jotoon a génn àddina fële ca Cap Skiring foofe itam ab euh, double meurtre moo fa am ndax vigile ak charpentier moom lañu fa dal di faat ci anam yu doy waar euh, wax na itam euh, li faat bakkan bi nga xam ne faat nañ ko kii di Abdou Diaw foofe ca Sogas bu yàggul dara ak ginnaaw loolu itam ki nga xam ne lii xewoon ca Caaroy sur mer Baye Cheikh jóob euh, mi nga xam ne euh, dañu ko dal di rendi itam ba ñu ko euh, enfin ba ñu ko rendee mm, moom moom da en fait dañu mujj ki ko rendi itam ñu mujj ko dal di lynché moom it loole nekk lu doy waar ñu ndar képp lim bi ak li nga xam ne moom moo am ca Thiès noor Assane Seck ñu waxtaanee woon nañ ko fii ay atam tollu ci euh, ñeent juróom benn fukk juróom moom it di gardien ci marché foofu ñu jotoon ko euh, faat euh, bakkanam loolee nag waral ñu lim lu toll ci ñeent fukki meurtre yoo xam ne ci diggante janvier la ak début février la am hmm. mu ëlëm xelu nit yi doy na waar dañ koy jeexalee ak la Côte d'Ivoire nga xamante ni daal dinañu remporter CAN bi waaw muy kan boo xam ne ñoom ñoo ko tëgg daanaka mujj nañ koo jël ginnaaw ba ñu tàmbalee ci anam bu xaw a doy waaye euh, mujj nañu gëm ba mujj ko daan ñoom nag niki démb lañ doon amal final bu doxoon seen diggante ak Nigéria ñu dugal ñaar Nigéria dugal euh, benn loole nag moom mooy waral Côte d'Ivoire dal di am ñetteeli étoile ginnaaw ba mu ko jëlee. ca atum 1992 loolu fii la woon sax ci Sénégal atum 2015 euh, ak ren ji nga xam ne nag moom mooy CAN 2023 bi ñu toxal euh, fubal ko ca atum 2024 bi euh, match bi nag démb la amee woon ginnaaw ba Nigéria njëkkee dugal ñu dem ba après Côte d'Ivoire égalisé ba daal di mu jur nag mbégte rawatina ki nga xam ne moom mooy Emerse faye may tàggat ndaw Côte d'Ivoire yi nga xam ne daanaka ñu ngi ko fa teg eh, ci diggu compétition ginnaaw ba ñu dàqee eh, ki nga xam ne eh, moom moo fa nekkoon ñu jóge woon ci match bu metti boo xam ne Guinée équatoriale dafa leen dóor dóor yu mati ñeenti bal ci dara <laughs> mu mel ni rek loole dafa leen yokk jom tey nag euh, mujj nañu euh, jël li nga xam ne moom mooy kan bi. très bien merci beaucoup Kajor ñu jaajëfal bu baax a baax euh, ci xibaar yi am na solo ñu dalal Amadou taal Amadou mi salminima mi salminima nu fi Adja maa ngi naan Adja saa yoo ma ñëwee ci fajar def benn erreur bu ndaw mi salminima nu fi Aïcha Dia bi. naka suba si chaque fois ñëw fii merci beaucoup. nuyu la am mbégte ak kontaan te ñëwaat fi fekk la fii nuyu Kadior Cissé ak nos chers téléspectateurs. dalal ak jàmm dañuy rebondir un peu par rapport ak euh, finalu démb bi la Côte d'Ivoire euh, daal di koy remporter euh, bien vrai que ñoom ñoo ñu éliminé mais ndam li Afrique la des donc voilà ñu félicité leen bu baax a baax. Euh, ils sont venus très loin ak seen départ bi nga xamante ni wax dëgg yàlla comme ni ñu ko doon waxee 4-0 yi. ça restera dans l'histoire mais euh, histoire aussi dina retenir na na retenir ni que Côte d'Ivoire a appris de seis erreurs et que vraiment wane nañ ni que dañu bëgg dañu bëgg jël final bi e que yàlla dimbali leen ci loolu mais Kajoor man feneen fi may ñëwaatee mooy il est temps que Afrique di recruter ses fils parce que tey ki nga xamante ni moo leen indi ba fii ci final xool fi mu jëlee équipe bi ak fi mu leen indi Euh, kooku ci seen coach locaux yi la bokk. Euh, donc te démarré wuñu ak ñoom. pourquoi ñuy dem di jëli bon je suis pas contre ñuy jëli ay tubaab mais pourquoi ñuy dem jëli ay tubaab di leen fay ay million alors que am nañu de la matière. waaw loolu am na lu bëri nag yeneen circonstances yu bëri yoo xam ne mën na ci bokk mais li nga wax ni euh, mënuñ ko dindi te il faut aussi ñu defe naa ñu ngi koy gën a gëm parce que on de plus en plus on a les euh, les sélectionneurs yoo xam ne. dañuy nekk d'anciens internationaux wala ay nit yoo xam ne am nañu compétence yi mhm. donc ñoom ñu ngi dem di di tàggatu ji di am ay ay diplôme di di man am compétence yi war donc qu'on qu'on qu'on leur fasse confiance dafay am solo donc mais boo xoolee aussi y un sursaut mhm. patriotique aussi boo xam ne am na parce que bi ñu leen dooree quatre quatre euh, 4-0 yi après par la grâce du du Maroc. ñoom ñu ñu qualifié après euh, genre c'est ils, ils sont devenus comme comme des éléphants blessés en fait. pour ne pas dire des lions blessés quoi. mais loolu daf leen gën a galvaniser mais non seulement galvaniser mais aussi ñoom gis nañu réaction wu population bi déception bi nga xam ne moom la population amoon après les joueurs waaw les joueurs loolu dafa am aussi lu mu joué ci ñoom par rapport ak seen prestation parce que boo xoolee aussi franchement qu'on se le dise euh, seconde partie compétition bi mhm. ils nous ont fait de très belles prestations ah oui. franchement donc du coup euh, il euh, y a l'engagement de la population avec les discours qu'il fallait les gens sont sont sont, sont se sont remobilisés oui. wan euh, peut-être ils avaient manifesté une déception mais après bi ñu qualifié. Mhm. boo xoolee bi ñu qualifié les discours ont totalement changé. Ouais. les les frustrations la on les a mis de côté après ñu wonewaat beneen espoir boo xam ne. Mhm. dañ dañ ci nekkaat demande ak beneen dynamique boo xam ne moom moo leen yóbbu nii ba final moi je, vraiment. c'est un cas d'école quoi euh, c'est une CAN boo xam ne bëri na surprise yi bëri na et tout il y a beaucoup de d'enseignement yoo xam ne ah sportivement war nañ ko mën a tirer ci CAN bi nii je pense que sa a été quand euh, une très belle CAN et mm-hmm. puis très bon très bien organisée quand Amadou. waaw li ñu ci wax euh, Aïcha mooy dañ leen di féliciter d'abord parce que comme ni nga ko waxee vraiment ils viennent de très très loin. donc jógee ci li nga xam ne mooy presque élimination ba jël li nga xam ne mooy CAN bi vraiment. il faut non certes non même pas nag même pas nag gars yi dañuy wax dañuy wax ni mais. yàlla moo ko jaarale foofu yàlla moo ko jaar mais après comme ni nga ko waxee première partie CAN bi c'était un peu difficile mais deuxième partie CAN bi vraiment donc ils ont bien ils ont bien géré en plus li nga wax dafa am solo ci wàllum entraîneur locaux yi donc d'abord c'était Djamel Belmadi Algérie après Aliou Cissé jël ko avec le Sénégal maintenant il y a aussi un autre Ivoirien bu ko jël avec avec la Côte d'Ivoire donc il faudra que l'Afrique vraiment ñu jël seeni fils gëm leen parce que je pense qu'on est donc ça actuellement parce que doo jël benn sélection française par exemple wala Allemagne doo ci gis benn noir boo xam ne moom lañ koy jox moom lañ jox équipe nationale peut-être mën nañ sélectionner des binationaux ou bien des des des, des expatriés c'est possible mais après sélection nationale il faut nga jox ko koo xam ne c'est un national c'est-à-dire loolu mooy tax vraiment donc ñu sentir le discours parce que mm. la plupart du temps boo gisee je pense que ni Gassé la plupart du temps mënul woon euh, fidéliser le l'équipe parce que discours bi muy joxee c'est pas le discours bi nga xam ne moom la joxe parce que benn tu n'es pas ivoirien donc dundoo avec les ivoiriens xamoo les ivoiriens donc il faudra nga dund avec les ivoiriens xam les ivoiriens moo tax nga mën a jox un discours boo xam ne un discours pertinent à tes yoo xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo lay déglu loolu amul à chaque subi ces échecs-là avec des Français qui étaient là mais le discours ne ne tient pas. qui nous largue même à partir de là-bas qui ne prennent c'est comme ça parce comme ça il faut enseignement yaa ngi noonu il faudra vraiment l'Afrique revienne si li nga xam ne mooy si fils yoo xam ne vraiment def nañu des preuves à l'étranger war nañu mën a ñëwaat ñu jox leen confiance te bu ñu leen joxee confiance on a vu hmm. les résultats. te bañ leen dooree 4 moom xaarul sax ñu dàqu ko moom daa démissionné. te da lay leen ni bu doon doomu réew mi. non lu mu métti métti métti métti day toog. ah loolu buñ ko fàtte moom moo dem te kenn dàq ko mu ngoog ñu félicité leen encore une fois de plus euh, ils ont vraiment euh, mérité cette coupe vraiment ñu jaajëfal leen bu baax a baax félicité leen am na ay sénégalais yu fa nekk am na ivoiriens yu nekk fii donc voilà euh, la Côte d'Ivoire et le Sénégal donc nii la dañu am une très belle euh, cohésion euh, sociale alors Kajoor li nga fi lim. ci ay ci ay dee diggante janvier ak léegi man daf maa yéem mu ngi noonu te boo xoolee euh, dee yooyu yëpp traité nañu kaay yi fii peut-être comme comme ni ñuy def rek dañuy ñëw wax ko après jàll ci leneen. yokkoo ci leneen. yokkuñu ci <laughs> yokkuñu ci en fait euh, boo seetloo yi ñu fi yi ñu fi lim yëpp. Mhm. toog nañ fii traité ko mais sauf que comme ni ñuy def rek quotidiennement nga ñëw information jàll on on on on on. fait pas le point sur l'ampleur de la situation ak densité bi muy àndal c'est-à-dire en en en moins de deux mois hmm. c'est-à-dire en, en, entre janvier ak mi-février nga compter plus de près de quarante meurtres yoo xam ne répertorié nañ ko ah, c'est ça donne matière à réfléchir parce que il faut que euh, nos forces de l'ordre ñu ñu ñu ñu ñu jigéen yi ñuy ne ñu manifester ñuy ñot di seen seen i greffage yi di leen dóor defe naa ah, y' a vraiment du travail à faire parce que boo jëlee quarante quarante euh, meurtres. si en moins de deux mois je pense qu'il a du travail à faire faneen foo xam ne foofu lañ ko gën a soxla avec des des des des personnes yu dangereuses yoo xam ne ñu ngi ñu ngi ñu à la population au lieu que nga concentré wu ci ay jigéen di leen brutaliser wala ay journalistes yu liggéey nga leen di brutaliser il y a du travail à faire vraiment le, l'énorme travail ça <laughs> le, le bilan est le bilan est sombre li Kajoor wax ni dafa dafa doy waar trop entre deux deux mois donc on compte plus de quarante morts war nañu xoolaat vraiment fan la Sénégal jëm actuellement parce que li ñu naan ndëpp national je pense que jot na ñu def ndëpp national parce que actuellement dëkk bi ni mu ni mu mel donc la violence qui sévit dans ce dans ce pays là donc euh, frustration bi fi mu toll je pense que ni actuellement jot nañu ñu waxtaan xoolaat vraiment ban direction la ñuy jox le Sénégal parce que il est temps que ñu xam ñun fan la ñu war a fan la ñu war jëm parce que un pays bu ñu woon le pays de la teranga pays boo xam ne jàmm ak salaam moo fi doon ak chaque fois mm-hmm. maintenant dañoo changer radicalement radicalement lañ changé c'est-à-dire violence frustration affrontement et manifestation on est tout le temps on est tout le temps dans ça maintenant on tout le temps dans ça léegi reyante reyante la wax alors que je pense que waruñu woon a waruñu woon mën a toll fa il est temps ñu def diagnostic xam exactement qu'est-ce qui se passe dans ce pays là bu fekkee ne dañoo war a waxtaan ñu waxtaan bu fekkee dañoo war a jël des moyens radicaux ñu jël des moyens radicaux régler ça parce que lii fu mu jëm Aïcha du jógoon di ñaawlu euh, li nga xamante ni moo leen daal mu mel ni mhm. seen signal euh, fa mu newoon delloo nañ ko fa. delloo nañ ko fa et euh, on s'en réjouit parce que c'est tout ce qui nous intéressait mhm. que euh, les les les les les le personnel mu retrouver waat liggéeyam mën a continuer li nga xam ne moom la doon def mais non. man euh, j'ai des j'ai quelque réserves quelques par rapport à à la manière dont ça a été dénoué euh, le directeur général qui qui qui qui qui, qui se présente toi foofu noonu moom tam mu ñëw di di remercier Marème Faye Sall euh, parce que fekkoon na ko fa mu ne ko kii c'est-à-dire le gars heureusement que man bi may wax fii keroog j'avais dit moi je me soucie du personnel de Walfadjri. Mm -hmm. Moi, je soutiens pas le le l'entreprise ak ki ko moom mais je soutiens le personnel boo xam ne moo fay daan dooleem le le le truc a été rétabli on rend grâce à et j'espère que moom mi demoon palais demul jël ay compromis yoo xam ne dafay changer ligne rédactionnelle Walfadjri moi c'est c'est tout ce que j'espère parce que euh, patrimoine la choix la boo xam ne ki ko daf ko daf ko moom moo nekkoon choix am te mu maintenir ko ba keroog mu muy génn àddina yàlla na ko yàlla yërëm. Euh, il faut que Sénégal mu am loolu ñii dañuy choisir lii ñii choisir lee tout le monde ne peut pas. di am même kii bi bu yàggee kon du am lu donc il yà benn benn benn tradition boo xam ne moom moo fa nekk moom il a hérité de la boite euh, taxawaayam moom moo xam pourquoi il a ce genre de posture là utee na ak papam loolu ñoom la mais ñun tout ce qui nous intéresse c'est que Walfadjri que les gens puissent travailler librement comme ils l'ont toujours fait et que benn compromis boo xam ne qui émane du palais ne vienne Euh, perturber une ligne éditoriale boo xam ne depuis belle lurette nit yi moom la ñu xamee Walfadjri. <laughs> Machallah. en tout cas doy na waar euh, voilà il y des gens li nga wax nii ñu bëri aussi moom la ñuy wax ci réseaux sociaux parce que réseaux sociaux yu tamit nit ñi dañ fay nekk di fa sànni seen xalaat. ñu bëri nee nañ Cheikh départ gaynde la def arrivé muus. man moom bi muy wax déloger Palais dama yaakaar ne daa daa ànduloon ak sagoom <laughs> maintenant man voilà li li ma si neex rek mooy delloowaat nañu signal bi comme ni nga ko waxee sa ça c'est c'est une très bonne chose euh, maintenant quand on parle de la liberté euh, de la presse Kajoor euh, bi mbir mi amee taskatu xabaar yi en tout cas dajaloon nañu defoon benn benn benn série de de de de de de xaw ma nu ma koy tuddee Euh, tegoon benn benn benn. plateforme plan d'action eh, plan d'action merci beaucoup. Mm-hmm. est-ce qu'aujourd'hui euh, plan d'action boobu dafa war a wéy. ah est-ce que li ñu bàyyi signal bi war na tax ñu arrêté parce que nag ñu ngi jëm ci ay échéances yu nga xamante ni kenn xamul lan la te bu fekkente ne ni euh, dañu tàmbale benn mbir ñu delloo signal bi ñu bàyyi mu sedd ça veut dire que à tout moment mbir mi mën na ñëwaat. je pense pas qu'ils ont intérêt à arrêter. le plan d'action bi ñu kii nii parce que <coughs> Walfadjri c'est juste un cas isolé. Mm-hmm. mais la presse elle est elle est de manière générale. on a vu Absa Absa Absa Anne. bu mm-hmm. bu Seneweb li li mu daj. ak yeneen journalistes yi ñu def parce que Absa Anne moom moo mujj hôpital moo tax. ba sam fës mais on a vu de yeneen journalistes de, sur la même vidéo ñu leen violenté. te loolu noonu ça ça toujours existé sa toujours été le cas man peut-être foofu noonu laa doon. Euh, ñun à notre part de notre part de responsabilité am na fu ñu ko mën a situer dans la mesure où bi ñuy waajal campagne les gens se sont mis à créer à préparer des des des des séminaires en journalistes yi par rapport à à la chose électorale nana nii nana mais il devait y avoir un séminaire entre les journalistes et les forces de l'ordre oui. c'est-à-dire il faut que à un moment donné que ces forces de l'ordre comprennent que si terrain de l'opération terrain opération boobu noonu ñoom nun fay ñëwee en tant que missionnaire ñu ñëw di di di di maintenir ordre noonu aussi la la la les journalistes les reporters sont envoyés sur le terrain pour le le, le travail de d'information donc ñoom ñaar ñëpp amul kenn koo xam ne yow yaa gën sa morom ci terrain boobu mhm, noonu mhm. donc la cohabitation elle doit exister de manière professionnelle qu'on en a qu'on mais la preuve ñoom xam nga dofuñu les forces de l'ordre dafuñu de. quand ils ont quand ils ont fait face à, à ce journaliste tubaab la est-ce que dañ ko brutaliser. dañ ko doon caresser. voilà donc ñoom li ñuy def xam nañ ko li ñu xam nañu lu ñu war a def dañ ko deful. yokkuma de parce que parce que quand il a fallu <laughs> quand il a fallu agir. Ah. en toute professe en tout professionalisme ils l'ont fait. parce que xam nañu ni le blanc la ils n'ont pas intérêt ñu ñu teg ko li ñu teg journaliste sénégalais yi. donc ñoom xam nañu ban taxawaay la ñu war a mën a am ci terrain bi nañ ko def moo gën te loolu noonu il fallait mu am au moins ay séminaires yoo xam ne ñoom seeni kilifa dañuy toog kilifa presse bi toog ñu ñu ñu waxan waxante ci dëgg ñoom ku nekk boo demee nga nga nga faire passer l'information mm-hmm. au aux aux au du rang parce que souvent ñi nekk ci réunion yi loolu moo ñuy daal aussi euh, formation yi ñuy def souvent les les les chefs de rédaction les chef de desk ñoom ñooy dem Mm-hmm. ñu dem ñu forme leen par rapport à à à comment sur le terrain bu fekkee amuloo chance xam nuy déplacé wu si terrain yow dañuy après ñoom bu ñu ñëwee toog au lieu ñu restituer li nga xam ne moom mooy euh, contenu séminaire yi duñ ko restituer maintenant les les les les les jeunes reporters yi ñuy envoyé foofu amuñu benn formation parfois parfois nga gis euh, ku nekk si terrain bi di def couverture mais tu te ñii moo tax il se en danger il se met en danger te loolu noonu yëpp ay formation en amont moom mooy war di am ay conscientisation il faut que ces ces ces de défense et de sécurité soient conscientisées mais surtout ñi nekk ñi agir parce que souvent ñi nekk seen supérieurs yi dañuy am benn retenue bi mhm. euh, parfois du ñëpp sax mais am na ñu ci am retenue mais bu fekkee ne ça a été quelque chose qui a été discuté en amont ba le message passe médiatise ko lépp policier bu bu bu buy nekk ci terrain bi di nga xam ne man je ne trouve pas des ennemis. journalistes aussi itam boo demee si terrain bi nga xam ne fi nga war a taxaw ak fi manifestation fi manifestant bi war a taxaw bokkul nga xam comment se mouvoir dans dans une zone de conflit. justement c'est une formation en fait. justement justement et ça fait honte de voir euh, cette image là yow au moment bi ngay caresser doomu jàmbur ngay manquer de respect ki nga xamante ni. complexe voilà. romb na sax complexe man trouvé wu ma moo ngi mais ça fait honte ça fait vraiment honte journaliste yi ñu seen ay noon ñu seen ay ennemis ci terrain bi mhm. parce que journaliste bu nga xam dafa sol gileem yor carte de presse am nga jàpp ko di ko malmener di ko brutaliser mais mais mais mais kooku ak peut-être manifestant wala ki nga xamante ni day romb ñoo yam carte de presse bi lu muy jariñ gilet bi mu sol lu muy jariñ mu leer la ne ni kii journaliste la nga jàpp ko di ko toroxal mhm. pendant yaa ngi dem caresser benn journaliste ça fait honte c'est honteux. li mu osé def sax journaliste sénégalais dafa ñu ko de moment bi muy kii mu leen di filmer ñuy ñuy def ay kii mu leen di film ban journaliste moo ñemee taw. jël sa caméra di leen filme kenn du li nga li nga wax dëgg la c'est-à-dire nañu nañu respecter de plus en plus les les parce que vraiment ce sont de braves personnes yoo xam ne à chaque fois bu dëkk bi di tàkk ñoom ñooy daaw pour informer li nga xam ne moom la mooy la population bu ñëpp toogee seen kër ñëpp nekk à l'abri ñëpp nekk en sécurité c'est eux qui se le terrain. pour vraiment prendre des informations et donner à la population donc nañ leen respecter ci liggéey bi nga xam ne moom lañuy ñuy def te c'est un travail qui est noble te ñu ngi koy wax à chaque fois vraiment bu démocratie tollee fii ci Sénégal yàlla yàlla ak ñoom la parce que ñoom ñoo tax vraiment démocratie toll fii parce que liberté de presse c'est un élément boo xam ne un élément fondamental de la démocratie le travail des journalistes le droit à l'information informer la population c'est un vraiment un élément indispensable de la démocratie bu tey suñu démocratie tollee fii ñu koy nuwee en Afrique ci monde bi yëpp pense que à cause des journalistes donc ñu leen gën ci li nga xam ne moom la def ci liggéey bi nga xam ne moom la def mais aussi que les forces de l'ordre vraiment ñoom tamit comme li nga wax ñoom ñu am plus de retenue devant les journalistes c'est vrai que des fois nañu comprendre ne ils peuvent s'emporter ce sont des hommes tout simplement ay nit lañ peut-être mën nañu emporter peut-être mën nañ juum chaque fois damay bëgg nekk ci ci neutralité bi c'est vrai que c'est pas joli on n'aime pas c'est c'est vrai qu'on n'aime pas c'est vrai qu'on n'aime pas ça c'est vrai que c'est vrai que Kajoor xuloo ma Kajoor xuloo ma Kajoor Kajoor xuloo Kajoor xuloo ma Kajoor xuloo ma mais c'est-à-dire c'est-à-dire bu fi gars yi bu fi gars yi nekkoon dañ la mën a dañ la mën a dañ la mën a tontu mais waruñu wax rek ci benn ci benn part yow xam nga bu baax li nga xam ne moom lay wax donc waruñu wax ci benn part dañoo wax ci part yëpp c'est-à-dire bu ñuy régler une solution dañ naan kii yow yaa def lii kii yow yaa def lii ñu jëm leen a xool na leen leen réconcilier <laughs> donc c'est un travail boo xam ne travail bu am solo la ñuy def nañ leen gën a gën a respecter mais aussi les forces de l'ordre aussi qu'on les comprend aussi des fois. on les comprend yow rek yaa leen di comprendre. Amadou merci ñu ngi lay jaajëfal. ñaan la yàlla na tase ñoom. <laughs> ba nu xët la bu la xëtee. te bu kaa ma lay bu kaa ma lay fan yi paase rek fan yi paase dama dem ci benn séminaire boo xam ne ONLP moo ko organisé. Mm-hmm. organisation nationale pour les pour la privation des lieux de privation de liberté boo demee foofu y avait des adjudants y avait des policiers y avait tout le monde là-bas ñoom dañuy ci comment gérer des manifestations comment gérer des manifestations mais boo leen déggee ñoom ñuy wax da ngay xam ne ñii exactement li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy def des fois dañoo sont acculés des fois dañuy perdre lucidité parce que la situation elle est compliquée parce que devant des foules devant des personnes yoo xam ne des fois tu comprends pas nan ngay gérer sa frustration nan ngay gérer la bi donc loolu moo tax des fois ñuy def des erreurs mais boo leen xoolee déglu leen bu baax a baax ce sont des sénégalais xam nañ bu baax a baax ñi ñuy jànkonte ce sont leurs frères bëgguñu leen def du mal mais des c'est-à-dire la situation moo leen voilà ils sont formés pour gérer la foule. jaajëfal nañ la bu baax a baax tey man ak Kajoor on est contre toi d'accord ñu ci li nga wa mais on on te le concède mu ngi noonu. alors je vous propose de regarder juste un clip le temps que ñu dalal suñu gan léegi léegi ñu dalal ko bu ko defee ñu seqal moom waxtaan bu am am solo.